Nous avons une indi suñu caution caution wu suñu candidat le président Jean-Baptiste Diouf euh, la coalition Jean-Baptiste Diouf mon camarade yi ma pour faire suñu engagement aux côtés euh, du président pour que jour élection l'élection, le 25 nous puissions gagner euh, su soobee yàlla. Nous, le parti socialiste et les militants et sympathisants donc nous dañu jàpp parti socialiste dafa war a am candidat. Nous la ñoom am euh, candidat mais nous ñun dañu japp candidat parce que ñi nga que yi euh, euh, euh président Senghor yore président Ousmane Tanordien, Dieng na leen yalla yok leer fi ñu nek ñoñu waru élection ñu waaw loolu nak euh, sénégalais yëpp da jàpp naa ne ñoom euh, nañ si loolu te Jean Baptiste Diouf nak euh, le président Jean Baptiste Diouf moom moo fësal loolu am courage boobu donc ñun ñëpp dinañ si jàpp si profiter tamit di remercier di waaw di jël delloo njukkeel sénégalais yi nekk fii si diaspora bi ak ñi nekk fii ñi nga xam ne jàppale nañu si parrainage te di leen wax ne nag ñun ñoo ngi dox. na ñu ñëw ñu jàppale ñu jàppale ñu bu baax a baax pour que le 25 cinq février Jean-Baptiste Diouf que le cinquième président de la République du Sénégal